waa jërëjëf tey ñi ngi ñëw fii ci salon international bu Paris nga xam ne wàllu mbay lay wax de façon générale Sénégal yàgg na fay ñëw euh, ñuy organiser nag suñu salon ñun ak waa Union des chambres de commerce bu Sénégal ñëw tey mise de l'élevage ak secteur am accompagné ñu euh, ñu ñëw fii ci Paris euh, salon bi nag privé yu bari moo ci ëpp na solo am na solo trop ñëw nañ ci Euh, privé yi ay producteurs sénégalais lañ ci domaine yu bari ci domaine euh, agriculture ci domaine élevage ñëw fii pour di wut ay partenaires yoo xam ne dañuy waxtaan ak ñoom pour xool naka la ñuy gën a mën a ñoŋalee produits yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy defar euh, pour soit am ay marché aussi également muy deuxième aspect bi wala aussi ñu jéem a xool naka lañ mën a yokkee seen production pour aussi bien Sénégal que fii ci ci ci bitim réew. notamment fii ci France donc muy lu am solo loo xam ne lii ñëw na fi exposants yi bari nañ yaakaar naa ne boo defee tout nga xam lan la lan la ñu fi produire euh, ñun aussi ñu accompagne leen de plan institutionnel parce que bari na ci ñoo xam ne ñi pour ñu nangoo ñëw faw euh, administration wala boog gouvernement ñëw mën na mën leen accompagner jox leen un peu le loolu moo ñu fi indi tey euh, visite yi am na solo liñ fi gis en tout cas dal na suñu xel ci suñu participation bi am na yaakaar ne dañ fi Euh, salon bi aussi dafa euh, yëg si période bi nga xam ne bii daanaka weer ci ginnaaw ñi ngi doon def euh, au niveau du Sénégal la ñuy wax sommet Dakar 2. donc réew Afrique yi daje fa pour wax kenn ku ci nekk fan nga bëgg a jëme si réew Sénégal am jéego yu am solo yoo xam ne bëgg na ko dox ci juróom at yi ñëw pour que ñu mën a béy lu ñuy dundee te dundee lu ñuy bay donc loolu dafa am solo wax dëgg yàlla ñu président de la République accueilliroon ay naataangoomu Afrique. ak ci kanam président Badd kenn ku nekk développé sa programme ñun yàlla def na ci trente milliards engagement yi nga xam ne amoon na ci dix milliards dollars mooy engagement bu Badd bi def ñun lu ëpp un milliard d'euros euh, lu toll ci un milliard d'euros nangu nañu ko jox donc ëpp na dix pour cent ci engagement bi mu jël pour l'Afrique donc ñun ñoo ci war a des maintenant pour mettre ko en œuvre donc loolu mooy loo xam ne lii am na solo donc salon bi daanaka un mois après loolu lañ lañu la ñu si ñëw Euh, du ñàkk ñu amaat fi yeneen partenaires yoo xam ne danañu mën a tax ñu gën a mën a avancer ci objectif boobu ñu fixé. jamono yi ñu nekk seetlu nañ ne Sénégalais dañoo gën a bëgg dañoo gën a jublu si mbay euh, ñu nekk si diaspora bi sax bëgg a ñëw di bay loolu lu ko waral. waaw waaw loo loolu moom euh, wax dëgg yàlla liñ ci remarqué en tout cas ci at yi ñuy génn te li ko waral it mooy taxawaay bi nga xam ne bii politique gu président Macky Sall am na ko ci mbay mi. parce que nag mbay mi damay faral di wax ne dafa am dafa am ñetti temps parce que président Macky Sall bi muy ñëw ministère de l'agriculture la naan dégg bi mu ñëwee mu xam ne kenn mënut a bay to amul ay jumtuwaay mu yokk ci ministère turu équipement rural. léegi bi nga xamee ne bii ñun ñëpp gis nañu conséquence u guerre euh, Ukraine bi. Euh, mu ne naaj ci yokkaat souveraineté alimentaire donc day booy xool agriculture sénégalaise tey ci phase boobu lañ toll loolu nag pour nga mën a am souveraineté alimentaire faw nga wut ay jumtuwaay yu am solo faw nga wut ay terres yoo aménagé faw nga wut ay mécanisation maanaam ay machines yoo xam ne dafay ànd ak ànd ak ñi nga xam ne ñi moom ñooy béy faw nga wut également ay engrais yu fertiliser sol yi donc loolu lépp nag dafa wane ne tey agriculture bi am na beneen dimension bu mën a am loolu moo tax peut-être que tey ñu bari ñi ngi daw jëm ci agriculture daw ci ak jëm ci agriculture pour mu nekk euh, secteur boo xam ne bii day nekk secteur euh, euh, rentable maanaam nit mën ci investir di bay di ci di ci dundee ba pare di ci di ci di ci di ci di ci commerce donc loolu moom la ñuy remarqué moo tax fii ñu nekk nii actuellement lépp loo xam ne lii agriculture dugg na ci rek nit ñaa ngi ci nit ñaa ngi daw di ñëw tey mi ngi ci wàllu aménagement bi am na Sénégal yoo xam ni bu ñu amoon tey accès ci teer yu ñu aménagé dañuy dem bay ceeb bay mboq bay leneen. am na également ci wàllu machine agricole yi fii mu toll nii président Macky Sall am na benn programme bu am solo boo xam ne bii yàggul bi mu ñëwee waaye tey li ñu am ci demande en tracteur donc wane na ne ñi nga xam ne dañoo bëgg a béy ëpp au moins ñett yoon li nga xam ne lii moo am ci offre bi donc wane ne tey euh, agriculture bi Sénégal yi bëgg nañ ko du rek Sénégal yi nekk bitim réew c'est vrai que am nañ possibilité ñëw intervenir waaye Sénégalais yi nekk biir Sénégal tey bari na ci ñoo ne ñi nga xam ne ñi nga xalaat ne agriculture bi rek moo nekk mooy débouché bu am solo tey nag dafay dëgg mooy débouché boo ne bii tey danañu mën a permettre ci wàllu xëyu ndaw yi ñu mën dugal lu baree bari dugal ko ci dugal bu am njëriñ. waaw monsieur koom-koomu Afrique li ko tardeel lu bëri euh, li ñuy wax ñàkkum transformation des produits si la bokk tey Sénégal yan tànk la war taxaw wala yan tànk la fas taxaw suñu domaine boobu. loolu am na am na solo parce que tey jii nii euh, en vérité euh, mooy li nga xam ne lii faw ñu def ko bu fekkente ne bëgg nañ souveraineté alimentaire. parce que benn mbir la nga produire waaye transformer wala boog nga denc dafa ci bokk également ci li nga taam ne daf ñuy gën a may ñu moom suñu bopp ci wàllu mbay mën naa ci jox exemple yu concret gis nga tey ci wàllu soble Sénégal li muy bay normalement bu ko conservé woon correctement mën na ko doy soxlawuñu tey importe ji soble pourtant at mu nekk lu mat ñetti weer ñu importe soble lu ko waral parce li ñuy bay am na ci loo xam ne lii mënuñ koo transformer ndax amuñ jumtuwaay yi am na loo xam ne lii mënuñ koo denc ndax amuñ jumtuwaay donc day yàqu soble bu fekkee mënoo koo denc mënoo koo transformer munoo koo denc lu yàgg am na diir boo xam ne mën nga ko denc bu ko weesoo day yàqu. loolu moo waral fii ñu nekk nii at mu nekk Sénégal di tëj importation bu fekkente ne ñoral nañ soble di ko ubbi bu fekkente ne soble si nga xam ne si waroon nañ ko lekk lekkuñu ko mu yàqu pour une raison ou donc dem na donc loo moo waral euh, président Macky Sall ne nañu investir également ci wàllu par exemple fu mel ni soble ci li ñuy wax conservation ak ci transformation normalement tey li ñuy bay doy na donc li ñu ci war a yokk mooy conservation ak transformation bu ñu ko defee rek chaîne soble bi daal di mat te lu mel noonu lañ war a def également ci yeneen filières yi gis nga tey jii nii ñoo ngi tiim fii euh, ay noix d'acajou tey li ci ëpp su suñu noix d'acajou yi dañ koy exporter noonu rek duñ ko sax toj duñ ko transformé ni nga ko war a transformé te tey boo xoolee fii sax gis nga fi ñoo xam ne ñi ngi transformé noix d'acajou yi donc war nañu gën a industrialiser loolu. ci wàllu gerte aussi même chose parce que gerte nit ñi boo jàppee li ñuy def rek dañu yaakaar ne da ko war a yëkkati rek euh, def ko nal ko diwlin mais am na yeneen. possibilité yoo xam ne war nañ ko mën a suñu gerte bi mu nekk ay débouché yoo xam ne yii bu booba lépp loo xam ne lii produit agricole dañ ko génnee danañ ko transformer mu indi valeur ajoutée gën a yokk ndaw yi ay liggéey mu bala muy génn réew mi donc loolu je pense que ci nga xam ne bii euh, loolu la ñu war def ci at yi di ñëw moo tax ñu tëgg ko aussi dugal ko ci stratégie souveraineté alimentaire parce que stratégie souveraineté bi am na ci projet yoo xam ne yi ay agropole la agropole mooy maanaam day ay zone yoo xam ne yi dañ fa war a développer agriculture waaye boo paree mu war ñëw ci chaîne de transformation bi avant muy dem ci table ñi koy jëfandikoo. te boo seetloo sax si misaal fu mel ne Jolof tey euh, bu nawet jotee soow mi ak meew mi day tuuru bu weesoo nit ñi di jaaxle. waaw loolu loolu Sénégal gépp sax xool parce ne ñi ngi importer ay nag yoo xam ne yi dañ mën a produire meew mais yemul ci importation bi rek dañoo war a fexe ba meew bi ñu ko génnee tamit ñu mën ko transformer ministre de l'élevage mi ngi koy wax ci suba au delà de indi ay génisses yu am meew war nañu def la chaîne de transformation c'est vrai que déjà impact bi am na solo ci économie Sénégal parce que boo xoolee at yi ñu génn li ñuy importer ci meew bi ngi wàññeeku donc président Macky Sall bi nga xamante ne bii wan wan nañ ko résultat yi nee na à partir de déwén au lieu ñuy importer mille deux cent nag yu jigéen nañuy importer deux mille cinq cent ba pare subventionné ko à cinquante pour cent donc loolu bu ñu ko yàggee def rek léegi ñu am ay nag yoo xam ne yii qualité bi dana yokk production meew bi dana yokk bu ci dollee transformation danañu gën a wàññil li nga xam ne dañ koy jëlee jëggaane bitim réew merci.